bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su dem seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru di la si waat nag yéen seen émission bi ñu tudde Alkitab Alkitab réalisé et présenté Alhaji Oustaz Alioune Sall et ses coéquipiers Oustaz Mbacké Sylla et Oustaz Alioune Mbaye à la partie technique Alassane Thioune niveau digital Cheikh eh, Omarul Foutiyou mbokk yi ginnaaw bu leen yoo ziar leen sëñ Mbacké Sylla ngi nii ci biir studio bi ma bàyyi léegi moom mu nuyoog yéen bu ñu paree ñu laaj ko nan la jotaay bi tëddee sëñ Mbacke asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Oustaz Ali ñoo ngi lay fay nuyoo. di la mm-hmm. nuyu. lay fay di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Sud FM seen rajo rawatina seen jotaay bii di alkitab di ñaan borom bi mu def suñu nuyoo bi mu fekk leen ci jàmm. tabaarkalla eh, ana gaynde waaw koy jaajëfal la bu baax a baax xam naa Oustaz Alioune Sall moom bi nga ubbee mbokk yi dégguñ ko danañ ne waaw ana Oustaz mbaa du xar mi da mbaa du xar mi da koo daan. loolu laa foogoon sax man déedéet waaye nag booba booba xar mi booba xar mi jotu koo daan déedéet xar mi jotu koo daan <laughs> euh, tubarkalla dafa dafa génn dafa tukki jamono ji ñuy waxee ma nga cee Italie mm-hmm, mm-hmm. Euh, war faa amal aw waxtaan xam naa samedi ji di ñëw euh, ci tukki boo xam ne tukki bu gàtt la looloo looloo tax ñu wutu ko ci jotaay bi insha allah ndeysaan macha allah yal na ko fa yàlla defal jàmm amiin ba mu desuwaat ak jàmm te yàgg faa dem amiin yaa rabbal alamin amiin nu jotaay bi tëddee jërëjëf ni ñu ko baaxoo tërale rek lañ koy jéem a tëraleeti nes tuuti rek ñu daal di ñëw ci waxtaan wi ci xaaj bu njëkk bi buñ ci noppee ànd ak yi ci téléphone bi bu 10 heures jotee ñu ne ci biir réew mi ñu nekk bitim réew bu 10 heures 30 jotee ci la seen xaaj ji ñu dellu si jéem a tontu laaj yi wéyal ko ba 11 heures 45 incha allah ñi bëgg ànd ak ñun ci tamit ñooy woote ci 88 628 98 98 ñi nekk ci bitim réew ñooy jaar ci 33 841 22 33 tabarakallah 28 628 98 98 foofu la ñuy jaar sëñ Mbàkke jërëjëf nuyu nuyu la sant la gërëm la mastawu nag mbooleem si lay cousin si la Cissé loo ji nga xamante ni ñëpp xar bi mbëkk na leen di leen mastawu ci tabaski bu mag bi nu bàyyi ko Oustaz ñu ngi lay nuyul sa bopp di la nuy yow di nuy ñi ngi daan nuyu ñëpp di la mastawu coono di la wax asalaamualeykum di nuyu foofu nga xamante ni fa nga daan mujje jëkke fa muy waa bitim réew waa italiano di nuyu waa France asalaamualeykum ñoom Doro ñoom Xalilu mbokk yu baax yooyu nga xamante ne ñu ngi ci accueil bi ak ànd beeg yow ndax ñu ngi gis statut yi nga xamante ne Doro dugal na ko asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu Pape Mor jamono ji toll nii mi ngi fii ci Sénégal li nga xam ne mooy président euh, amical bi nekk ci Sud FM diaspora di ko nuyu di ko ziar. Ndeye Camara également mi ngi fii sunu mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar. Ibrahima Wade Wadeen Gawaj ma nga fële itali Italie ñoom tam ñu koy nuyu bu baax di ko ziar yat ma Mbóoj bokk yépp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu del si fii ci Sénégal nuyu waa Sénégal nuyu mbooleem taximaan yi ak mboolem safori tataay yi daa mel ni nag Mbàkke euh, mën ngaa toog ci autoroute bi sax di ataaye moom démb moom daanaka moom embouteillage <laughs> moom da ngay bërëg moo tax tey ma jiitu la fi Sénégalais yi moom daa mel ni seen fête jeexagul waaye nag daa mel na ci wàllu administration moom fête gi jeex na ndax la Tabaski lan demee la woon waaye booy xool télé bi moom walla ngay xool embouteillage bi nga xam ne nit ñi ba léegi reprendre guñu di nuyu suñu mbokki takk der yi nga xam ne ñu ngi ci àngal yi nekk ci coin yi di contrôler asalaamaaleykum di nuyu suñu mbokki mool yi nga xam ne jamono yu ñu toll nii jën du am dara du am waaye nag tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant leen gërëm te di leen wax asalaamaaleykum. ndokkeel nañ ci ilimaan yi ndokkeel ustaas yi ndokkeel sëriñ si ñëpp ñuy waaj waaye di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi nu génn te mooy al iidul udhiya yal na dellusi si déwén te fekk ñu fi te bu déwén damay ñaaw yal na dàq ren. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp yéen ñëpp kenn ku ci nekk suñu bu ñu la tuddul ci làmmiñ sunu suñu xel tudd na la. xam nga bu doon la le professeur Oustaz Aliou Sall nga xamante ne moom day tàmbalee ci jaaykati ñambi yi jaaykati naana yi ñëpp du leen fàtte ndax moom ñëpp ay xaritam lañu kon loolu dina gën a matale. waaye ñaari ndongoom yi te ndongo bi ci gën a ndawee moo ci nekk moo ci kàddu gi rek moo tax mu demee nii kon nag ngeen comprendre ñu rek te xam ni tabaarakalaaw oustaz fi nekkul waaye bu fi nekkoon dina gën a yaatu. dellu si ci studio bi fekk fi sëñ Mbacke si la tabaarkalaaw moom itam mu ngi door jóge fële sëñ Mbacke ginnaaw bu ma la nuyoon nag masawu la ci xar bi ni mu la mbëkkee woon ak coono bi nga daj yëpp wax dëgg yàlla mbaa màcc nga si ngom. <laughs> macha allah <laughs> kon kon maanaam kon fi ne xar mi daf maa mbëkkoon. daf ah si bi damaa mbëkkoon wooyee. Eh, noyyi gi nga may jég mi xëy na noonu yëkku sonn la waaw kay xam nga coono xar ma mbëkkit ñaari yu fi bokkul non xam nga bu la xar mbëkkee faaw yi ñoo doon bëkkee taman xar mi ma amoon xari xaru la xaru coggal ci pël-pël yi nga amoon waaw déedéet pas pël-pël mais coggal ah, waaw waaw coggal di moom ñu bari ah, coggal du mbëkkee <laughs> yaa coggal xaru coggal moom <laughs> yar xarum yar moo xam ne moom day kii day bajantu jëpp-jëpp yi yooyu ñooy mbëkkee daal <laughs> mbaa mu jën na teel a yéwén waaw tubarkal waaw ah, yàlla baax na tubarkal la wax dëgg yàlla yàlla suturaal nañu alhamdulilah waaw xam naa li imaam Momar Seck di wax ñaare bu defee émission ba ba pare na <laughs> imaam yàlla bëgg nañu de <laughs> waaye daal eh, xam naa ne ak daal bu dee sant léeg am na yoo xam ne bu ko xalaatee ba wax jooju imaam wax dana ko wax ay yoon yoon dana toog yàgg mu ne ah dëgg dëgg na yàlla bëgg nañu billahi waaw ndax yàlla suturaal nañu daal imaam yow Mbacke fàttali ma lu imaam imaam Seck waaw wax ju am tawxiid nit ku tawxiid la ku ku la ku ragal yàlla bi ñu waxtaanee pare ba mu génn fekk ma ma tëj ma toog ma imaa lii alhamdulilah rabbil alamin yàlla bëgg nañu de dëgg dëgg dëgg am nañu dimbalu yàlla nii la dëgg dëgg dëgg am nañu dimbalu yàlla waaw di tubarkal macha allah ñu ngi koy nuyoo passé moom itam di ko ziar di ko bu baax a baax a baax macha allah duggoon na keroog ci bisu tabaski bi ndeysaan <laughs> ñëpp ziar na leen nuyu na leen ndeysaan ñu ngi koy ndokkeel bu baax si Mbàkke macha allah loolu am na solo ñu tam ñu ngi koy ndokkeel <laughs> waaye itam di beralaat am nuyoo bu baax a baax mm. uh, oustaz Alioune Sall waaw itam tubarkal la di ko masaw ci coono yi trop sax ndax Mbàkke la jullee daal di ñëw rek enseigné dem ca liggéey ba moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko baalu àq bu baax a baax di baalu àq itam auditeurs yëpp ni nga ko waxee mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. di baalu àq ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk fii ci kër gi di beral am nuyoo itam suñu directeur Baye Omar di ko baalu àq moom it naka noonu suñu techniciens yi alsaan cuun lañ jàkkaarlool waaye mën nañoo jaare ci moom baalu àq mboolem ñi nga xamante ne ñooy toog ci taabal ji tey ànd ak ñun di góorgóorlu ci jotaay bi ba mu jàppandi ba mel ni muy mel lay de sax wax nga dëgg wax nga dëgg macha allah tàmbale ko ca bu baax moom ak ndimbalam ak jàppaleem. Hmm. da dalay xool ci biir ba rek wax dëgg yàlla am ñeewante am yërmande. Hmm. yal na yàlla taxawu ko. jëf ju ji mu jëf ci événement yi te jëkkewul ren. Hmm. jëkkewul daaw jëkkewul daaw jéeg. boo fi toogee ba léegi. lépp lu eh, métti Euh, employé yi mm-hmm. wala luy seen soxla rek lu mu ci man def na ci ba def lu mu mënul kon yal na yàlla taxawu yàlla sàmm ko te aar ko te may ko ndam ci li ñu ko dénk mm-hmm. yàlla bu mu ci benn laaxan te yàlla na àgg te àggale sago te nu ànd kook moom bi jaay si naam salaam amiin yaa rabbal aalamiin eh, di gërëm ay kilifaam nag yàlla ñëpp mm-hmm. waaye comme ni ko waxee rek oustaz Alioune Sall mi nga xamante ne mooy suñu njiit ci waar wi ak suñu chef desk religieux El Hadji Imam Maodo macha allah sa sa sa con débatteur. waaw waaw <laughs> macha allah sa njàmbur saa bawal. dara dàqul loolu. ñu ngi ñu ngi kontaan baax nag ci personnel sud. Hmm. Eh, ba ci correspondant yi. Hmm. macha allah di leen ndokkeel tam ci campagne bi. Hmm. ni ñu amee équilibre ak ñi nga xamante ne noonu la ñu wanewaat seen professionnalisme. kenn mënul leen a joxañ ci fii lañu far wala fii la ñu féete. dëgg la te loolu c'est très important ni ñuy traiter information que ne ci fongile mi na mu gën a soree tam na mu gën a maandoo rek la koy waxee. Mm. loolu nag du pour liñ fi nekk. waaye yàlla xam na ni ñin ñu man ñu bari dañ may woo di indi seen contentement ak seen xol bu sedd ci liggéey bi gërëme ko directeur gërëme ko rédactrice en chef sax Ndeye Marème ak mboolem ñi nga xam ñoo rëdd ligne éditoriale bi am na solo Oustaz jërëjëf jërëjëf Imaam li euh, noo jàngatee tabaski gi ak xutba yeeg <laughs> euh, yi nga xamante ne moo ci bàyyikoo yëpp rek ci orientation waaw moom ndax xam naa laaj bu yaatu la de xam naa daal bu noon dama doon jëkk doon euh, jàngat dama naan lépp lu lépp loo séen rek romb na la wala nit ñi war na ci jàngate ni lépp luy séentu luy romb la mm-hmm. comme day romb nag def ci lu nga man mm-hmm. beneen bi ci des mooy fexe ba doon ki nga doon mbàkke solo la mm-hmm. ba pression bañ laa yóbbu incarnation ak kii bañ laa yóbbu doon ki nga doon ni Serigne Cheikh Tidiane si meloon xëy na jafe na fexe ba dugg ci nit ñi génne sa bopp ci nit ñi doon ki nga doon te kenn mënu la soppi mm. xam nga da ngaa dégg naan ren xar du am te moom moo ci tabaski kay moom koy nangam nangam incarnation bu ko defee nag boo mel ne boo mel ni nga tëb defee ni te c'est la fin du monde fekk na lépp ay rafet mm. yàlla du def lu ñaaw dëgg la tey ñi tabaskiwul danga leen di wàññi mm. ndegam am na waaye am na moom am na euh, waaye booy xool xar yi lu ñu bari bari bari bari jeex na du dëgg li des bariwul hmm. kon de kenn ku nekk la nga tollool am nga ko hmm. Hmm? kon ñu bàyyi xel ci ni lépp lu ñëwati nañ ko ànd ak dal te jiital ci diine te xam ni àdduna bii ni mu mel nii lañ ko fekke te daanu dem bàyyi ko ñii te dara du ci changé ah, tabaski feet la goo xam ne dañ ciy jànge dara hmm. ndax itam defe naa borom bi subhaanahu bu ñu ko indilee mu nekk ak feet hmm. mu yoonal ko jaarale ko ci lu xewoon hmm. nga xamante ne daa xewoon ci diggante ñaari nit mu indiwaat ko jox ko yonent yàlla muhammad jox ñu ko mu nekk bis boo xamante ne bisu mbégte la bisu yaatal njaboot la bisu ñu gëjoon a gisee eh, gisewaat la ñun ñi nga xamante ne sax dañuy dem di julli ca suñ dëkk ya nga am occasion delluwaat léeg nga dem fa nga jànge woon mm-hmm. lele nga delluwaat gisante yi ñi nga xam ne daaw nga leen gëjoon a gis mm-hmm. tabaski du feet bu ndaw ñi ci amul ngànt ñëpp dañu ñëw julli si mm-hmm. rencontre yooyu nga xamante ne day amaat oustaz Alioune ba bis bi jàll ñu dellu si waat ci liggéey yi loolu lan lañ ciy war a jànge waaw bokk na ci li tax ñu xam ne rek euh, tabaski même dañ ne sunna la mu akkada am na sax beneen ngir bu wax ni waajib la euh, maa ngi dégg Maodo di ko wax démb euh, waaye loolu lay xamal rek am na ci loo xamante nii daanaka waajib la. Mm-hmm. bu fekkonte ne sax dañuy rend xar mi dong la. Mm-hmm. waaye gis gi ngay gis sam ñu nga jëkk ñu nga gëj gis. Mm-hmm. ak temps bi ngay am ak occasion bi ngay mën dem seeti leen. loolu ne waroon na nekk farata ci yow. ndax doxuk bokk ak sàmmuk bokk. farata la ci ay ay ay mbokk. loolu daf ciy am solo trop. nga xam ne nag li ñu war gën jàngante nag xam ni ak bokk waruñu koo tàqale. waaye war nañ jàngate ni doom war naa déggal way jur mm-hmm. war nañ jàngit ni way jur tam war naa jël responsabilité à tout moment mm-hmm. wala boog kilifa rek di manière générale jigéen tam war na bàyyi xel ci këram ndax li tax ñu am feet gu mag gii muy feet gu rëy rëy rëy rëy ba adduna bi yëpp di ko feetu mm-hmm. jigéen ju nangul jëkkëram la ko yàlla rafaatale dëgg la ndax amoo lu jenn doom mm. mu nuru la mm. dégg la sawar lool du wut sa noflaay guddeeg bëccëg ba suuf sax bu la taqee ma faxasal la ko. Mm-hmm. sunu borom ne sama diggante yow day dinaa xool ndax euh, bëgg nga ma wala li ngay wax dëgg la wala déet. ndax mm-hmm. sa doom ji ni mel ci yow rendil ma ko. Mm-hmm. sunu borom euh, loolu loolu dafay làmb xolam. rendil ma sa doom ji. waaye gisal li sunu saas daan firee. yaa abati if'al maa tu'mar ba mu ne inni araa manaami inni asbaxuka gis naa ni dama dama gént ne dinaa rendi waaye nag fan sur maa sax dara da ngay jàpp concertation kon borom kër war na di concerté ak njabootam quel que soit décision boo mën a jël war nga concerté ak sa njaboot waaye itam nit tam nga ko bàyyi ak xalaatam bu moo doon yow a day nangam laa ciy def wala man de xanaa nga dolli ci nangam wala ba xanaa nga defee que nii parce que conseiller ak kii ne veut pas dire que li nga wax rek la war a def. Hmm. te nit nañu juum foofu. Hmm. nit kii mooy responsable di doxal ci kër gi. nii la dama bëggoon léegi daaneel miir bii def ko fii mu ne te nga daaneel bii te yëkkati bii def ci ay poto wala nga ubbi buntu kër gi nii. Hmm. xam nga loolu ay waxtaan la. donc loolu mooy. Euh, li ñu bokk ci liñ ci war a jàngate. waaye ndekete àqu njureel ren di nga ca. waaw mm-hmm. ah, ndax kon war naa dóor war naa mm-hmm. war naa pini mm-hmm. war naa gëdd war na napp war na war na war na yu bari war na ko def kon ndekete if almatumar defal loola loolu liñ la digal ci man bay ba ci loolu loolu jaadoon na kon yow miy jàngale wala yow mi yar wala yow miy yore réew wala yow miy commissaire wala yow nangam nangam nangam if almatumar peuple peuple bi lépp loo xamante ni yoon may na la ko ci da ko ciy def kon doom li li ngay li kàddu bi gën a rëy si doom mooy nga éduquer ko yar ko ba mu xam kuy kilifaam xam kuy waajuram xam luy réewam xam lu mu war a def. Mm-hmm. loolu mooy droit waaye bi ñu bëggee yàq suñu réew yi nag dañuy jël dañu nangu loolu. Mm-hmm. jël xale yi jox leen droit jox leen sañ-sañ jox leen àq. Mm-hmm. yoo xamante nii liggéey tungoomu ko éducation tungoomu ko dara tungoomu ko ñu xëy ñoom ñëpp kenn ku ne jox lay droit nga xëy rek daal sama droit. boo nee sama droit dara gasoo dara kenn gasul dara mais droit yi euh, kon duñu duñu gaaw a avancé. Mm-hmm. kon xale yi il faut ñu jàngat ci maam Ibrahima ak doomam ji. Mm-hmm. jàngat ci Ismaïla boo ànd sa papa bokk si jaada jëm ca balaay bayal ba di julli ji. Mm-hmm. te yeew nga xar ca kër ga. war nga xam ni bu du woon a xar mii. man mii sama baay am na sañ-sañ ci rendi ma ndax. góor ni moom la yàlla laajoon bakkanu doomam. Mhm. mu am pas-pasu rendi ko. Mhm. kon sama bàyyi bi war naa ko jox cër sama baay bi war naa ko déggal. Mhm. teg ko foo xamante ne nii mu rendi ma sax dagan na ci man. waxuma laa nag di ma yónni waxuma laa nag di ma fanaan loo àll. mbaa mbaa di ma sant waaye xale yi léegi koo ci ne dama lay kaay defal ma nag mu ne xaaral ma ñëw. nekk ci li mu nekk mu neex mu doon ñëw loo wax. yooy te yooyu baaxul. dëgg la bàkki daal te ci gàttal. wallaay wallaay moom kay eh, njàngat mi nga ci jàngat am na solo lool te xam naa bu ñu ko bàyyi woon it nga wéy man di ci jàngat ba mm, tubarkal la waaye dañoo noppee ci tabaski gi daal di dugg ci campagne bi. waaw xam nga li ko jiitu itam. Mm. daa mel ne sax posé woon nañ tuuti. Mm. ndax waajtaayu tabaski gi xat-xat yi. mbokk yi dem ci dellu si waaye ñu daal di ciy dugg jamono jii eh, ñi ngi ci waajtaayu élection yi nga xamante ne ci la ñuy tànn. mais ñu ngi tànnaat mais askan wi nañu xoolaat bu baax mbaa du ñu tànnaat la ngeen doon ŋàññi hmm. ci kaw nii nga gis ñu commencé ko def di takk toj ay oto hmm. di waxante lu ñaaw est-ce que ñooñu ñoo ñoom ñoom ñoom ñooy nar a tane ñu doon xas hmm. parce que tam bu fekkee da ngay da nga da ngay da nga da nga bëgg ñu tànn la joxeel programme dinaa wote ay loi dinaa propose ay projet de loi nangam jii mi ngi fii loi la mais l'islam gisewu ko noonu wala boog ngor gisewu ko nii dinaa indi ci wàllu loi ci liggéey bi nii su ma amee majorité dinaa def lii parce que nit ñi dofuñu mm-hmm. projet programme la déglu mais xaxarante dégluwuñu ko di mm-hmm. diggee loo xamante ni yow wóor na ni li ngay diggee sa compétence may la ko ay loi ak luy defaral institution yi ba ba nga xam xamante ni kenn dootul bëtt sart réew mi yoo ak insécurité dëkk bi yooyu la ñuy loi loolu kon kon maanaam dayo bi élection yi am nga xamante ne yu ama am dayo la daa mel ni yëmul rek ci eh, ci ay élection eh, législative rek waaye daanaka ay premier tour présidentiel la <laughs> hmm? noo gis fi ne nii noo ko xalaat rek angal boo xalaat rek fi ne nii daf lay jox positif parce que lu nekk lu ci bëree bëree bëri daf ci lalu hmm. ndax dèjà ñu ngi werante troisième mandat ñii ñu ngi werante Euh, dernier mandat. Ah. ci président xëy na mën naa am euh, te loolu la ñu séentu. lan la ñu séentu si mu jeexal. Hmm. mu jeexal bañ kon kon maanaam ci ci ci ci am njàngat da ngay gis ne bii moo war a nekk dernier. waaw euh, mandat warul parce que sax nee nañ sax bu ñu wax troisième mandat mais nañ wax troisième candidature. ndax ndax doon candidat taxut a gañe. doon taxut a gañe <laughs> man de su si lii noonu sama sama xalaatu bopp la lii may wax nii. sama xalaatu bopp la boo xam man de bu ma doon laaj man de bu ma doon laaj man. dama naan dama naan ko du ma présenté wu waat. waaw dama naan ko duma ma wu waat ndax gàcce ngaa laama li mu waroon def yëpp def na ko waaye ku dee bàyyi mébét ku dee bàyyi projet. du dëgg. Hmm. ku dee bàyyi projet. te àdduna bi yàlla rek moo ko yor di ko wëlbati boo gisee miraas sa bopp xawul dagan mooy da ngay bëgg a xam kon lii ñëw sa ginnaaw bëgg ko contrôler loolu la loolu la lislaam di eh, tere foofu moo tax liggéey ba agsi fi nga war a liggéey. ni fii laa yem lii lañ ma waxoon fii laa yem jërë ngeen jëf dem leen ngeen bëre ji ku réew mi wóolu ngeen fal ko man ma dem noppalu ji. Mm-hmm. man de noonu la gis xëy ne sama gis-gisu politique moo xootul xëy na peut-être waaye. non non euh, gis-gisu politique mais gis-gisu gis-gisu diine d'abord. nga euh, en tant que koo xamante ne jàngalekatu lislaam la. Mhm. Euh, léeg-léeg itam téere bi ginnaaw borom bi daa wax ne fàttewuma ci dara. Mhm. itam lépp a ngi ci réglé suñu doxalinu àdduna. Mhm. réglé suñu doxalinu alaaxira. léeg-léeg tolluwaay bu ñu toll war nañ koo mën a jàngat. jàngatin moo xam ne bu ko ko bu ko imaam bi di jàngat. mën naa waaye nag kenn ku ne nga xam ne fi ngay dellu. léegi yow looy layale li nga wax nii bu fekkoonte ne tey da koy delloo si ci daara bu doon dama koy dellu si daara dama koy dama koy layeele li kenn yàgg ci nguur nguur kenn du ko ñidd xam nga surtout baqara mi li taxoon ñu tuddee ko baqara ba aw nag di ca am yàgg ci nguur a ko waraloon ndax buur bi yàggoon ci nguur dem ba mënatul ba buy génn dañ koy woomat te bàyyi te deewul feebarul ñu yàkkamti woon àgg ci nguur gi am ko ko ci agressé ba rey ñu ne nag lu toll ne buur mënee su ko rey te kenn du xam ko rey mm-hmm. booba autopsie xewul mm-hmm. waaye ñu ne am na jenn waay ju ni yonent la muy Muusaa mm-hmm. comme yàlla ak yónni nag nañ tam ca moom mu laaj yàllaam ji sunu buur bi ko ci la leen yonent yàlla wax ne nag sama ngeen rendi nag gaa ni ko nag ñu koy nag <laughs> nagu benn sax ñu nekk fa rek naan waa nag nag boobu daal du nag wuy ro du nag root du nag wuy bay du nag am lii du nag bàyyi nga nag wu zone la moom ñoom moom ñoom ba ñu ah baax na kon nag dinañ ko rendi hmm. bi ñu ko rendee mu leen jël leen benn cër ñii ne nañu genn ba ñii nañu xool bi la ñii nañu làmmiñ waaye ba mu ko jëlee dóor ko ci jëmmee ki faatu dafa ne ñokket daal ni diw mii moo ma rey biig la ma rey hmm. yaa ngi dégg hmm. moo ma rey ndax yàkkamte toog ci pouvoir bi waaye daal dafa daal di deyaat kon yàgg ci pouvoir loolu lay indi beneen bés des mooy ku bëgg a safee euh, ñun ñëpp war nañu roy ci Nelson la Nelson Mandela du musulman certes waaye nag wane na ci Afrique loo xamante ne kenn mëntul doxal ci wàllu démocratie ak mm. wàllu yamale mm. te doo ko tudd mm. du dëgg mm-hmm. suur dafa baax te kenn doog ba ñu yëlëb sa loxo yëlëb sa loxo baaxul te léeg-léeg nga dem ba xër liggéey liggéey loo xamante ne kenn mosu ko liggéey ñëpp di la ci naw xër ak bàyyi leen ma àggale fii dana tax nga yàq ko mm-hmm. euh, Oustaz Alioune Sall mosuñu waxtaan benn suur mu ni ma mun ma xam nga ni golo ko rafetoon ma ne ko lu tax mu ñaaw mu ni ma dafa taxaw ci seetu benn bis. Hmm. gis bët yi dañu waaye yow man sama bët bi kay bët yi dafa xaw a génn trop. Hmm. daal ni nii <laughs> benn bi dugg ba ci biir mu yóbbu. Oh. ëpp na muus am na. daal di daal di bësaat ni ñaar yëpp hmm. loolu lu mooy man manaatu. loolu loolu la loolu la olof naan jékki-jékki la yàqoon bëti golo mu ngoog mu ngoog. moo yàqoon bëti <laughs> moo yàqoon bëti golo <laughs> moo tax ma ne la. ci lislaam eh, loo bokk ak say nawle mooy li nga moom ak li nga bokk ak nit ñi ak li sa yoon nekkul waaw li ñu war xaar ci moom mooy ay projet de loi yu dëgëral suñu institution yi loolu la xaar ci yow doo nekk itam député benn parti. ay projet de loi maanaam député bi defar ay loi waaw kon député defar loi yombul di Ousmane Mbaye waaw da ngay maanaam da ngay proposé hmm. da ngay proposé ay loi hmm. seulement bu fekkee nii Euh, ci wàllu sécurité yi man nañ indi loi boo xamante ni yoo xam vol de bétail yi li ñu ci waxoon bu mhm. buñ ne dañu voté nañu ba criminaliser nañu ko mhm. suñu jàppee nit nañu topp loolu mhm. du dëgg beneen bi ci des mooy ñu xool sécurité bi ñiy agressé nit ñi yan loi lañ ci war a mën a teg mu diis ñi nga xam te ne dañuy ñëw di sàcc alal jàmbur nan la ñu war a def nañ fexe ba nit ñi tegu ci jàmm te loolu bu bu amee du président moo koy def nit ñi ëllëgu ñu ko ci ñu ko ciy topp. Mhm. parce que bu ñu nee tey indi woon nañ fi CREI yi mhm. mhm. a ngi fi ba tey mi ngi fi. waaw dafa kii rek. dafa dafa giim <laughs> waaye mi ngi fi de. <laughs> beneen ko fi indi woon. mais su fekkoon ne ay lois yu dëgër ko fi samp Mbàkke dañ ne ñi fi nekkoon la ñuy topp ci wàllu CREI yi. daañu leen jàpp OFNAC ñun ñi fi nekk bu ëllëgee ñoom ñoo ñuy topp xam nga xalaat bi rafet na mais léegi léegi lan mooy li lan fan la mujj. Hmm. ci biir trois yi la mujj. Hmm. député yi waruñu dem ci àll bi xool suñu hmm. sabodola bi. waruñu dem xool sa surgon bi. waruñu dem xool yi mbell yi nga xamante ne am nañu ko. ba xam député yi ñi nga xamante ne ñoo fi nekkal peuple bi lan lan nuy jox. loolu yan député koy def député député opposition wala député euh, au pouvoir. waaw député xam nga député amul pouvoir amul opposition. Ah, ok parce que dañoo am député député yi bokk ci parti pouvoir bi. Mhm. maanaam par exemple ci coalition bi nga xam ne ñoom dañuy dañ di wax sax di leen tuddee majorité mécanique. Mhm. nga xam ne am na fi député boo xam ne waxoon na ne man lu lu président indi ma wate maanaam lu man di doon. du ma mhm. xool du ma nangam. Euh, te itam dégguma luwaa bu fa président yeble delloo ko ko. foofu léegi euh, la ko may loolu doole jam fa amatax kon laay wax ne la ne la député warul doon benn parti hmm. boo xasee ba ñu fal la takkal la euh, Macron bi waaw yow léegi tey député de peuple boo gisee kenn warul la laal te defuñu l'immunité parlementaire nu mu tuddati hmm. immunité immunité parlementaire voilà immunité parlementaire kenn warul la laal parce que askan wi la proteste ndax askan ñoo la fa nekkal hmm. mais boo fa nekkalee nit wala nga nekkal fa benn parti nag bu boobaa jamono boo defee dara war nañ la jàpp ne la ci ne la toogal benn place. Mhm. donc moo tax ma ne benn député warul nekk député benn parti dëgg la nag ci parti ngay faroo. ndax tam bala ngay nekk député mbooloo ñuy dem seen parti nga dem laaj ñu seen askan boo xasee nag ba ñu élire la ni nga nekk député nag léegi nag ni oustaz Aliou doon wax ni ma man oustaz mooy sama sëy mhm. doon wax ni fexeel ba doon karoot mhm. maanaam ceebu jën bi carotte bi moom karoot la supeme mhm. bi supeme la nawee bi nawee la ñaami bi ñaam la mhm. waaye nag du tee rek ceebu jën la mhm. loo ci loo ci loo ci ñam rek da xam la mu saf maanaam boo nee président bi rek moo lay indil ay loi ngeen voté ko mu jàll mais bu keneen koo ne nii ci beneen euh, loi la ñëwee wala beneen groupe parlementaire la bokk bu proposé dara ñu ni nañ ko xeex kooku day indi ay coow loo xam ne nañ xool ba xam baax na wala baaxul su fekkee jëriñ réew mi nañ ko voté yaa xayti mu lan mhm. te itam kuy def euh, loi bëgg bu ñu voté ko tam bu ko def ngir daaneel président bi mbaa nga def ko ngir saboté gouvernement mbaa nangam parce que Sénégal passé na fu ñuy saboté ay gouvernement ak fu ñuy mhm. déstabiliser gouvernement mhm. parce que ñun ci dem ba mandat jeex ñu dugg ci urne seet ka nu neex wateel ko foofu lañu toll foofu la foofu la ñu nawee Afrique foofu la ñu nawee ñun waaye déstabiliser gouvernement ak gouvernement àggalagul mu des ay quelques mois nga daaneel ko def ay ci diggante yooyu yooyu projet taxul ñuy wax. képp ku ñu jox kàddu wala ñu jox la carte nga yilif assemblée bi bu ko def arme di ko xeexe kenn. Mmh. des fois sax am na ñuy poser question euh, di laaj ba xam sax est-ce que bi amal na ñu njariñ député yi est-ce amal na njariñ askan wi wala wala déet ndax day mel ne li ñu leen di critiquer moo ëpp lu may dégg ñu leen di apprécier seen doxalin. waaw dafa am nag erreur bu ci am ci seen doxalin. Mmh. erreur bi mooy bi ñu demee ba gis nii dañu koy def en direct télévision. Hmm. procès yu am solo ñu du koy def ñu def ko en direct télé yëpp am sañ-sañ seen signal di ko génne. Hmm. am ñuy live ci internet bi. Hmm. saaga yi. xastante bi. xaxarante bi. dama ne boo gisee waañ am ci kër. bu doon ne tey Mbacke Sylla mii gis na nañuy def ginaar ca waañ wa. bu ñu la ko taajalee doo ko lekk. mais est-ce loolu benn la Oustaz Mbaye jàppoo ne député yi itam lay xew assemblée dañ ko war a am a assemblée daa waroon am télé boppam télé boo xam ne télé parlement bi la. Ah, lépp lu fay xew ñu génnee ko. waaw waaye nag euh, ñu àgguñ foofu. Hmm. suñu suñu maturité àggul foofu gis ni ñu démocratie bette. gis ni ñu dem ni ñu démocratie ah bette. àgguñu foofu non non àgguñ foofu parce que euh, tey du France gi nii tey Macron ñàkk na assemblée bi. mais xam nañu France restera France ba léegi. duñu ñu ko gis def du kenn du fa voté benn loi pour contre nga président bi. Mhm. ak bëgg nga gàcceeg président bi. Mhm. tax nga naan da ngay def dara. waaw mais parce que itam est-ce que est-ce que itam ñoom kon seen seen modèle bi ñu yor te jox ñu ko ñun dañoo dañoo dañoo yemul rek. est-ce que itam euh, Macron itam gal-gal yi nga xamante ne euh, <laughs> tubarkàlla est-ce que moom itam defee na ko noonu. waaw c'est foofu nag mooy problème bi xam nga ñun toujours du ñu jox original. non ñun ñun xam nga ñun tam dañoo bëgg di victimiser wu mbay ah. bu fekkee rek ñaan ñun nangam yow yaa wax léegi ñun ñun àgg guñ ca ñun ñun ñun loolu war a guñ koo def ñun tam dañoo war a gëm ne aw nit lañ ne nit ñi jëkkee très bien théorie yëf yi ni ñu ko war a yore voilà léegi nag booy jóg dafa dafa am yoo xam ne daal jàpp naa ne eh, maanaam won ko askan wi hmm. jàpp ma ne hmm. eh, waaw jàpp nga ne garaawul mais garaaw na xam nga tax ma hmm. jàpp na ne garaaw na mooy dañu bëgg xam lépp te guddi dafa am bëccëg dafa am dëgg la guddi am na bëccëg am te ñun mm. dañu bëgg a xam lépp mm-hmm. te ko xam lépp rek seexlu mm-hmm. mbaa nga bañ mm-hmm. moo tax bari na yoo xamante ne nii du leer bu jarul sax nga di ko xam d'accord léegi taxawaayu taxawaayu euh, diine ji ak waa diine ji ci ci yëf yi ñoom itam léeg mu doon loo xamante ne mat naa mat naa bàyyi xel ndax ñiy wut ñëpp dañuy dem di leen seeti euh, ñenn ñi dañuy dem sax di Euh, jéem a wut ndigal. Euh, maanaam euh, ci façon bi ñu koy wutee. bu ñu ko wutee wut noonu kenn ku ne da nga wone ne maa gën a xejj. maa gën a jege man ba ma ñëwee fonk nañ ma. yëkkati loolu boole ko ci sa ci ci say bagage ngir wane ne safe naa loolu nag li muy tegtale mooy ki ngay ñëw ngir bëgg a xejj ca moom li muy tegtale mooy kooku am na doole ci réew mi am na baat ci réew mi baat bu rëy rëy rëy boo xam ne boo demoon ci réew yi fu mel ni Amérique Eh, ci wàllu élection ñooñu la ñuy tuddee ay grands électeurs hmm. nga xamante ne ñoom doonu bu jë maanaam yemuñoo ko euh, man wala keneen wala hmm. keneen wala keneen hmm. ay wàccuwaay yu mag a mag lañ am noo jàngatee seen taxawaay ndax tey bu ñuy wax réew mi ñu ko dëkkee ñëpp ay jullit lañ waaye luwaayeeg euh, suñu constitution yu baree bari niñ ko euh, niñ ko ràbbee diine ji moom daa booti loxoom di seetaan maanaam bu ñu desalee rek lañ koy lañ koy may te élection yi élection la yoo xam ne buntu la ngir am ay yoo xamante ne bëgg euh, bëgg réew mi dana leen yitteel euh, lu jëm ci wàllu code de la famille bi ci misaal euh, lu jëm ci wàllu maanaam estati bi nga xamante ne nii moom la nitu diine war a am noo jàngate loolu macha allah jërëjëf am na solo trop mais booy xool tam nit yi diine yi li ëpp yëpp dañ leen xaw a gañe dañ leen xaw a gañe ca départ ba hmm. ba ñu fexee ba daanaka këri këri diine yi mu am dikk Euh, am na dikk maanaam am na am na am na am na frontière laa bëgg a wax ndax bu fekkante ne frontière amul kon ni assemblée bee kër diine yi ñoo fay jiitu ñoo koy yor mën nañu bañ a mën nañu bañ a nag xëccoo présidentielle gi waaye nag nan loi yi nañ ko xool mais tey yaa ngi ci feetu tabaski. Mhm. tabaski la daan demee feet jeex na. xam nga euh, le lendemain le lendemain am na feet mm-hmm. yoo xamante ne une semaine la avant une semaine après. Mm-hmm. Hmm? waaw yooyu mooy yi nga xamante ne. noonu lañ ci jotee ci yëf yi. voilà noonu lañ ci jotee. noonu la àndaale yi léegi la. nga màggal sax kañ lañ kañ ci ci ci réunion Ablaye mm-hmm. loolu am. te ñun Mag Ousseyn daan ko kaas fii. Euh, korité euh, la korité sañ daan korité liggéey léegi lañ ko commencé yoonal xaw ma ndax dëgg la am tabaski moom le lendemain moom wóor na gàmm le lendemain wóor na mais léegi ana ana tey ba ba ñu ba ñu tëbasee yaa ngi ajuma tey mhm. génneel fii ci tali bi mu mhm. ngi leer naa kenn ñëwagul nit ñëwaguñu daal dañu bëgg xam ne dama wax rek ne fi doole ji nekk ak fi nit ñi nekk foofu la ñu néewal doole mhm. mooy nit ñi dafa am fu xel yi daje mooy ci seen borom subhanahu wa taala fi seen xel daje suñu borom subhanahu wa mooy suñu kilifay diine yi kii suñu kilifa yi diine nag bu ñu amoon bu ñu ubbi seeni seen i bunt di gis ñoom seen biir seen i njaboot parce que euh, xëy na peut-être cadre unitaire tàmbali woon na ko ba ñoom amoon nañ sax benn départ mais bu gënoon a yaatu bu gënoon a yaatu nga xamante ne dañu seet ay député heure war na fekk tey ñu seet lu man presque këru diine gu nekk ñu am fa ay membres yu bokk benn liste mm-hmm. waaye tey parce que ni ñu def diina ji def diine diine jàkk ja la ak jumaa ja mm. loolu moo dul yoon moo tax it saa wu ñu paree def projet de loi ñu nit ki ngir ab murit nga faluñu nit ki ngir ab tijaan nga hmm. nit ki ngir eh, dara dañ la fal ngir yaakaar ne am nga compétence hmm. yaa ngi dégg sëñ Babacar Kess bi ñu ko ne lu tax nga bàyyi Lamine Gueye di faral Senghor dafa ne ni ñu ma imaamu juma ñu ma imaamu jàkka hmm. njiitu réew la ñu farloo te man na ko kon di sa xool fa mu xool xool fi mu bokk ñoddiwu ko ci këram gi mu bokk man fii laa moom defal ma lii defal ma lii nangam nangam nangam bu loolu amee kee def lee kee def lii hmm. pëccaxoo day am hmm. donc mu tax la waroon xool nag euh, fàttaliku nga ci ginnaaw euh, zéro enfant dans la rue hmm. bu ñu demee ba ci euh, ci assemblée bi ñuy daganal ni képp ku xarafalate jigéen nañu la tëj xale bu fi kuy liggéeyloo xale nañu la tëj ba pare ñuy wut seen i kaar di ramas nit ñi. am na ndongo daal yu bëri noonu leen génnee Dakar. jël seeni doom delloo ci seen dëkk. mais loolu man amoon na lu ko gën gënoon rafet. kenn d'accordul ci xale yu taxawaalu def ay tànk yu ci dëkk bi. waaye nag boo leen bëggee dimbali mais accompagner leen. lu ngeen bëgg ku leen ci jàppale. ñu ne nangam ak nangam. Mm-hmm. lan nga gis alal ju bari ji nga dégg yëpp ñu koy def li dalee ci pale bii ba ba ngay génn frontière Sénégal ban daara wala ban école nga fi gis bu état tabax ni lislaam a tax ma def ko fi. Mm-hmm. ngir ngeen jàng seen diine. Mm-hmm. gisoo ko. du ci ak gouvernement bu njëkk ba du ci bii du ci ba ba ca wàll du ci bii ñëw itam. kon ñun suñu diine ji dina jàkk jàkk jumaa ja la ku nekk yaa xam noo koy dunde bu ñu ñëwee ci penc mi nag kenn ku ne ñëw si penc mi mais defaluñu lislaam dara. dara lañ defal weer waa ngi nii. <laughs> macha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf oustaz Alioune kon ñu dem service commercial jëli publicité yi ci coon gannaaw bi ñu leen dokkeelee bu baax a baax jéggaluwaat auditeurs yi wax leen ne oustaz Alioune Sall dafa tukki. Hmm. moo tax jot euh, teew ci jotaay bi. merci beaucoup shukran coon à vous euh, na solo ñu jaajëfal leen bu baax a baax jaajëfal la yow it euh, daal dellu si nag ci jotaay bi <laughs> Ibrahima Wade oustaz suratu Yaasin la doon laaj ak ñun. waaw suratu Yaasin mu ne aaya douze. mooy tolloog fi borom bi di waxee naan inna nahnu nuxyil mawta wa naktubu ma xaddamu wa athaarahum wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin barkallah eh, imaam eh, sëñ Mbàkke jërëjëf laaye ji de jar naa <laughs> jar naa fàttali ko bu baax a baax a baax a baax ndeysaan eh, inna nahnu nuxyil mawta suñu borom nee na jarul yàkkamteelul xëccoo yéen ñëpp dañ leen dundalaat daañu leen dundalaat di ngeen dekk dañ leen laat wa nag maa qaddamu li ngeen def lépp lépp bind nañ ko wa asaarahum li ngeen bàyyi seen ginnaaw tam bàyyi nañ ko fa Mbàkke la am na daara mi ngi jàngale mboolem ku jàng ca daara ja tuyaaba daf lay fekk sa ginnaaw Mbàkke la gas na teen Mbàkke la tabax na dispensaire Mbàkke la gëmbat na ay garab wa asaarahum ku ca teerlu wala nga lekk ca sa ginnaaw danga nga ci am tuyaaba waaye mbaa waaye Mbàkke Sylla defar na baar defar na ay kabano defar na ay auberge. luy yooyu caaxaanukaay yooyu. mooy kii lan noo. kabano noo kabano. <laughs> defar ay. ay kii la lu ñuy e-, e-, lu lekk la ak yooyu. déedéet mooy e, paasukaay temps yooyu rek yi nekk ci côté géej géej yooyu. kabano waaw c'est façon yooyu. ak <laughs> immeuble yoo xamante ni ay appartement immeuble. Hmm. parce que yu temps saa boo bëggee foo dugg fa am ci lu dul jeex am ci lu dul jeex dee bàyyi ko fi say njaboot di ko xëccoo da ay ubbi ay école de danse mm-hmm. ay école de tëgg yoo xamante ni jëmul nit ñi fen di yàq jikko yi di yàq nit ñi yéen da ngay dundal aar da ngay dundal culture yàlla fowul folowul mm-hmm. afa xasibtumu annama xalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turjauna yàlla nee na fawuma fawuluma binduma leen indi leen fii ngeen di caaxaan ak di fo di ngeen ñëw yéen ñëpp kenn ku ci nekk benn par benn te nag ma qaddam wa asaaruhu la ngeen bàyyi woon nag seeni doom di ko donnante seen sët di ko donnante yàlla na kon muy tuyaaba waaye bu dee bàkkaar la daañu ci am bàkkaar te bàkkaar bu ñu seen wàllu fekk leen fii seen bàkkaar mm-hmm. moo tax man la lu jar a bàyyi xel la mm-hmm. nag tuuba macha allah ah kiimaan la. yéeme yéeme na trop <laughs> ndeysaan moo tax booy bàyyi sa ginnaaw. Mm-hmm. seeta li nga bàyyi lu mu doon la dëgg dëgg la baax dëgg la am na solo lool aaya joo xam ne la kon aaya aaya ju jàngale wàllu dekki la waaw ah, mu ngoog ah, borom bi nee na moo moo danaa leen dekkal te loolu defe naa lu yomb la lu yomb la ah laa ilaaha illa la xam nga booy xool mais nag dafa bari ñoo xam ne gëmuñu dekki oustaz Mbaye waaw xam nga ñàkk xamee day day tax moom nit dina dugg ci mbuus bari na bari na oustaz Mbaye parce que itam ñàkk gëm dekki moo tax yu baree bari ñu di ko def mais buñ gëmoon ne dinañ dekki xamaan nañ geneen dund am na loo xamante ne duñ ko yemale tey tey waaw xam nga ñàkk gëm dekki ñàkk seetlu la rek waaye xoolal béykat bi nga xam te day jël dugubam ci naaju tàng wi gas bu mu xóot dugal ci dugub sama borom ne mën nga ko dénk ci sama loxo nga ko teg nan la dugub jooju di mujje day jékki-jékki rek taw bu tawee nu muy def saq jeeb bi juróomi jugoon juróomi fepp nga ko joxoon wala juróom-ñaari fepp nga joxoon mu jox la ci téeméer rek lu topp ku gëmul dee war nga xam ne dekk ku gëmul dekki war nga xam ne dekki am na ndax baykat yi moom war na xam ni de dekki am na. ak yeneen ak yeneen ci ay misaal yu baree bare sunu ba lu wax dina leen wan ci gox yi ba ngeen xam ni lii man maay dëgg kenn ku ne di nga ñëw te booy ñëw di indaale li nga fa bàyyi woon ak li tax na bàyyi la fi. tey soriwul. Mm-hmm. inna laa xaribun mm-hmm. soriwul maa ngi leen di dégg. Mm-hmm. innahum yaranahu baida hmm. wa narahu qariban wallaay foog nañ daa sori waaye ak a jege mi ngi fuu dëgg la est que mi ngi fuu soriwul est que kon kon kon aaya ji day mel ne bu ñu ko seetantalee ni nga ko waxee da hmm. mën nañ cee dégg ñetti déggin hmm. mooy nuxyil mawta naktubu maa xaddamu wa asaarahum wa kañ waaw maa danaa leen dekkal waaye la ngeen jiital ci aw yiw da ngeen ko fa fekk li ngeen fi bàyyi itam mm, te muy lu baax lu leen fay fekki dana leen fa fekk allahu akbar allahu akbar <laughs> ndax dekki moom dana am ñu bari nag dañoo gëmul ni dekki danaa am. yaakaar naa ni ku dee rek. dëgg la moom pare nga. fekk na déedéet. ñetti étape la nit ki di dund. te lu ci ne nekk nag yàlla la ko gàddil ba ci bu mujj bi. nit fa mu nekk ci biir woy juróom wu jigéen. ànd boobu muy muy nekk ci boo gisee bu nit ki juddoo ñu dagg ànd bi. suul ko. ravitaillement bi muy dund yëpp ànd boobu ci la nekk. ci ànd bi. ci lay dundee ci lay lay defee lépp moom liir bi te bu amee euh, am nañu luñ ci lu gën a yaat luñ ci ah, ah. bu boo waree juddu dañ naan la léegi man lii mëntu la dundal ah. dañuy transférer budget bi ci sa weeni ñaari way jur léegi ci sa ñaari weeni way jur nag foofu la sa wërsëg nekk nga cay nàmp di nàmp di nàmp ba meew mënatul a jariñ suñu borom nit foofu itam éliminer nañ ko transféré nañ ko ci plante yi nga war a lekk ceeb lekk dugub carotte ñaam bi pour loox yu ni mel nga di cay dund nag ba nekk ponk moom suñu borom ne nag beneen étape bi la desee nag loo fa yóbbu loo ko fa fekk beneen étape bi la desee parce que boobu xel mi màgg na jëmm ji màgg na yàlla roof na la kattan léegi préparel nag parce que dëkkoo fi comme yaa ngi bitim réew nag loo liggéey rek feretal feretal foofu mooy fan mooy bàmmeel mooy bàmmeel kon ndegam ba nga nekk ci biir waajur wu jigéen la la yàlla fàttewul nga ñëw manoo dara yàlla fàttewu la nga dem ba man dara yàlla fàttewu la ndax jox na la xel jox na la kàttan mhm. kon bu ëllëgee bul mere kenn melal sa bopp dëgg la noxil mawta danaa leen dekkil yéen mhm. na leen dekkil mhm. te it wa naktubu maa qaddamu li ngeen fi itam da ngeen koo fekk ah, macha allah am na solo jërëjëf jërëjëf Ibrahima Faye eh, ca Allemagne teg na ci beneen laaj oustaz nee na jigéen ñaata at la eh, war a am ñu door koo may borom kër waaw bu majoré rek waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy jox suñu yaay Xadija sept ans la am neuf ans ñu door ko koy jébbal. bi ñu ko jox suñu yaay Aïcha. waaw mm-hmm. neuf euh, sept ans la am neuf ans ko koy. ñu door ko mm-hmm. na ba tey màggi nii ak kañ ka doon jox moom mooy kan foofu la ñuy laajte. Mm-hmm. waaye mariage précoce moom amul ci lislaam. ma mariage précoce. amul ci lislaam. nee na nee na nee na ku may jigéen ba di ko muur wala nga di ko joxe yan kàddu nga ko war a wax. mu muñ. sëy neexul. waaw léegi lu tax ñuy wax loolu nag lu tax ñu naan sëy neexul Oustaz Mbaye. parce que sëy neexul. xam nga itam sëy itam wax dëgg yàlla di ci yeble mel ne ku yeble cib xare nag. muñal nangam nga xam ne moom day mel ne ku jëm guerre <laughs> sëy bu neexul lan mooy neex nag xare la xam nga doomal la am nañu kon rek kon nga bëgg a wax voilà adduna ci boobu mais adduna li muy naxari naxari ku nekk baayam ñu naan ko muñal ba am boroom kër <laughs> hmm. muñal ba am nangam hmm. yu ne mu di ko muñ tey nag mu war a doon kilifa war a dem këram hmm. war a ànd ki mu bëgg war a ànd ki mu tànnal boppam war a dund dundam ni mu ko war a dunde ñu ne ko neexut léegi yow ci xare nga jëm dangay ngay boo ca yee nangam loolu itam ah <laughs> ma duñ da ngay guerre waaye xarala daal ndax ne bànnee xamu fa ndax yow li nga doon muñ sa kër papa sax mooy yaa ngi juddu ci sa ñaari way jur ah ñuy wut lu la neex boo meree ñu nax la boo jooyee ñu naxtaan la boo bëggee ah. ñu wuti ba kay ngay am. mais ci say bet boo meree dañ laa war a nax. waaw di wuti di la jox di la dundal di la woddu di la dëkkal. di la dëkkoo parce que foofa yaa ngi ci tool yi nag parce que da ngaa ne ci tool yi di liggéey parce que foofu da nga ko boole ak liggéey. Hmm. ndax tam lii la fi yàlla indee woon mooy loolu. jigéen ñetti bee yi ñuy bañ moom moo ko fi indi. Mhm. biir boot bàcc. loolu mooy responsabilité bi. sambay lii gàtt na de. ah neexul de. maanaam am doom boot doom bàccal doom. waaw léegi looloo fi indi jigéen. waaw waaw jigéen lu defu fi dara lu may wut produit bu fi des. li nga li nga li nga wax nii man man jàngale la li nga wax nii diine la wala aada la. wala lay wax. diine laa wax joo xamante ni parce que continuité àdduna bi ci jigéen ñi la dépendre. waaw ci ah, ci jigéen ak góor la dépendre. waaw ak ak góor. waaw waaw léegi nag ki ci ëpp responsable mooy jigéen. waaw mais nag boo nee boo nee loolu la fi wut si. waaw cest à dafa mel ne euh, am loolu am solo la ci dundam. voilà loolu la fi wut moo tax jigéen dafa dañ dañ ko war a aar. Mm-hmm. dañ ko war a sàmm. Mm-hmm. dafa war ne noŋ. Mm-hmm. waaye gor ak yéeg ak def ci ay sofo. waaw waaw kenn sant ko jigéen. lay responsabilité dafa am mission am daal dafa am voilà am loo xam ne mission góor la. léegi nag bu góor ñi fayite seen mission nag léegi nag ci la lii di feeñ. Hmm. ci la ci la ci la ci la taxawaay jigéen ñi di feeñ. kon coono bi jigéen ñi tegoo. da ngaa wax ne hmm. góor ñi dañoo góor ñi mais góor ñi lañ ko teg. Hmm. parce que la yàlla waxoon ni ku ciy takk jigéen nanga ko jox can gu mat sëkk. nanga nga ko dëkkal. na nga ko woddu. na ko faj bu feebaree. nanga nga ko dëkkoo. Eh, loolu bu fekkoon ne respecté nañu ko te muy lu wér. kon jigéen du jar muy dem di di kalambiru ay car ak di dawal ak di def ci ay car rapide wala muy dem di mais mais nag bi yàlla di wax lii itam jigéen a ngi doon liggéey de waaw jigéen jigéen dafa am lu mu war a liggéey mooy métier ñaw jàngale yar jaay yooyu dafa dëppook natiram d'accord ak lu mel ni àtte waaw lu mel ne àtte waaw lu mel ni ay àtte njaboot gi Euh, façon yooyu man foofu laa bëgg wax rek. ah d'accord mais waxoo àtte ci tribunaux yeeg yooyu. déedéet àtte ci moom góor nit góor mu loolu góor ko ah. góor moo def loolu. góor moo mat ni góor la li naa leeral moom bu baax a ah, ah, góor moo war àtte. lu yu rëy yooyu te diis. Hmm. góor ak a gàddu. Hmm. rijaalu qawaamuuna ala nisaa yi hmm. du caagi noonu rek góor mooy kàttan yor miskili yi. mais dafa am yoo xamante ne góor ñoo ko war a saytu. gàddu ko jigéen ñi. bu ta bu dee taw góor a war a génn mbaj ji mi dem liggéeyi. Mhm. bu dee naaj góor ma war a génn ci kër yi dem liggéey dëgg la buñ dee xaar ci kër gi kàddu góor la. Mhm. dépense góor la. Mhm. ordonnance góor la. dëgg la yëpp loo xamante ni li nga ni kay moom kenn. du ci wax werante parce que biñ bu ñu séddoo rôle yi. lii moom rôle góor la ci lu wér. lépp loolu góor la ah, dafa dafa mel ne dafa am loo xamante ne. Euh, mission wu nit la ci boppam. kañ bi mu nekkee mission wu nit am loo xam ne jigéen a ko war a taxawee. ndax moo ko man moo dëppoo ak tolluwaayam ak nature. Hmm. ak ni ko yàlla bindee am loo xam ne góor a ko man ak loo xam ne ñoom ñaan ñëpp ko mënandoo. waaw kañ bu ñu demee ba jigéen ñi tey bëgg nangu société bi suñu loxo yow itam ni nga ko tuddee loolu mooy lan nangu société bi nangu nangu société mooy góor ñi ñoo dem ba fay seen mission ah. parce que jéematuñu dara léegi ku mel ne man boo ne booy bëgg a takk jabar sa lu muy liggéey waaw ah, luy sax yoon lu si loolu moo xew léegi ah waxti léegi nag moo tax jigéen ñi am jom am seen fulla mhm. dem jàngi comme ñëpp mhm. am seen i diplôme mhm. taxaw di concours ak góor ñi nga gis góor goo xamante ne jigéen ne ci kanamam mais laaj lu muy liggéey it baax na mais xëy xëy na bañ a dépendre ci moom moo baaxul loo ciy laaj non non xam nga laaj bi itam ñi koy laaj. Hmm. Euh, mën naa am ay raisons yu bëree bëri. man mën naa am ay raisons waaye yu bëree nag. li bon daal mooy foo wéeru li bon daal mooy wéeru wéeru moom. man ngeen a ànd nag bu ngeen àndee ku man ku ne na taxawu moroomam rek. ah <laughs> waaw wut foo wéeru loolu moo gën. Euh, loolu jom da ko daan bañ. waaw kay wut hmm. wut foo wéeru. suñu xëy na mu am ci yeneen culture wala yeneen i gisin ci àdduna bi waaye ñun ci suñu was wi ñu wi ñu am ñun. Hmm. suñu culture góor moom day góore waaw xawaama xawaama arijaal xawaamu gi ngay wax euh, maanaam xawaama gi góor da ko góor mooy taxawu jigéen rek baat bi loolay tekki mooy yaa koy taxawu këñ waaw bu bëtam xonqee yaa war a taxaw këñ ah. <laughs> bu bëtam donc moom lu mu mën doon rek yow lañ ciy xaar ah. sa jabar léegi moom nag moom moom nag lan la ñuy xaar ci moom ah, këñ ñoom sa ndey yi lu ñuy xaar ci eh, eh, ñu xaar ci moo bari li ñu xaar ci ñoom <laughs> euh, mooy yor jikkoy sapeur pompier góor bu sonnee ma ngay njeganaay ci lupp jabaram góor bu jaaxlee mu ngi fanaan ci luppuy jabaram gémmiñam ak nopp jabaram sa sa sa gémmiñu soxna ak sa nopp ngeen di waxtaan nga koy wax li li na ci yow ak li la gaar ak lu mu mën a doon hmm. ngeen di communiquer ngeen di communiquer li ngay wax nii de moom léegi-léegi mu jafe loolu ci sëy yi léegi waaw parce communication moom hmm. daanaka problème yëpp ñàkk communiquer ko parce que dañoo tànnatul hmm. ndax léegi sëy yi léegi du ñaari intéressé yi rek la mais yow dangay ngay ñëw ak say xarit ki ñëw ay xaritam te nit ki boo ko sutul woo mënoo ko jàngal bu nit ki dee sëy si ànd ak i xaritam yoo xam ne kenn amu ci far wu dëgër sax bëgg la conseil ci ni ngay sëyee. lu ñu dee far wu dëgër. amul far wu dëgër mooy ku a hmm, waaye koo xamante ne yow sëyoo baare woo nooy conseil kuy sëy. yow ko moo tax sëy dañ ko daan togg ba mu ñor buñ dee boo dee sëy am na ko laaj sax ci laaj bi ñuy yëkkati sa bàjjen. mu yóbbu la mbaa ko xam sa tante la mbaa ko xam ne eh, am na expérience ci sëy soo yeggee wax ak yow ñaari dëgg. bu nee ba ñëpp dem. Mm-hmm. mu toog yow ci néeg bi ni la ah, attention. Mm-hmm. Ah, nii la nii la nii la nii la. Mm-hmm. joxoñ la sa goro. joxoñ la sa jëkkër. nga xamante ne yow foofu ngay déglu foofu ngay émettre. est-ce que est-ce que macha allah am na solo jërëjëf Ibrahima euh, Faye Alaaji Fàllu Lay moo ci topp ca Espagne. moom daa mel ne indiwul ab laaj. waaye dafa indi ay siyaar rek ndeysaan ak ay nuyoo ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu baax baax ak yóbbante oustaz Alioune Sall nee na italien yi dañuy lekk lu gudd loolu lu mu tudd <laughs> spaghetti spaghetti waaw ñoom dañ ciy lekk am na ci <laughs> dañ koy laxas nii ko kii ah, nee na <laughs> tubaarkàlla nga moytu yooyu ah sëñ Fall daal nee na oustaz na moytu spaghetti parce nee na foofu dañoo bëgg spaghetti waaw ñoom dañ ci am ay plat yu bari sax man Fall daal bi na am am na ci expérience <laughs> imaam Mor Seck moom macaron la bëgg. ndeysaan imaam. Ah. yu macaron moom tawarkaal. macaron la ama ko waaw mu ne ko yee eh, ngóor ay am na de <laughs> waaw mu ne ko dañoo togg soos waaye amuñu mburu <laughs> mu ne ko ah maa mu ne ko ah xanaa kon nañ ah, ngi Touba léegi. mu ne suñu faru lay dawalal léegi mu ne oh ndaw lekk suus <laughs> ndeysaan <laughs> baal mbokk yi waay <laughs> baal séeréer yi maa ngi leen di nuyu ñoom asanti nag ñëpp ndeysaan kii ci topp oustaz mooy hmm. sëñ Mansour Diop ñu ngi koy nuyu baax baax suñu xarit boobu mi ngi may laaj sa numéro léegi ba yónnee naa ko ko voilà très bien euh, nee na ca sóoratu parce que daf ma doon message gisuma ko waaye yónnee na ma léegi bi ñu coupé rek ndeysaan bañ jokkoo ñu ngi koy nuyu di nuyu Imam Moussa Fall euh, di nuyu mbokk yëpp ak suñu suñu beneen xarit bi ki nekk ITV Imam euh, Biram Pouy Euh, <laughs> waaw Oustaz Pouy waaw Oustaz kii moom ak euh, sëñ Mansour euh, sëñ Mansour mi dugg léegi imam Moussa Fall moomu nëga ni si daaw rek bi ñu wàcc tabaski defoon nañ émission man ak moom ak imam Pouy moomu ca ITV waaw ñu nuyu ko baax nag moom itam di borom taxawaay di di nitu daara dinaa leen di seetaan ITV ak i rajo waaw ay kàngam yu garaaw fa nekk wuu ah. àgg na foofoo yëpp waaw ah, comme kan ku mel ni Ibou Fall <laughs> non non ku mel ne Taïb Socé ak Imam Pouy. waaw wasalaam ñu dem <laughs> non ñooñu moom ñoom hors hors hors catégorie. waaw jeex na ñooñu daal tey Taïb laa mu firil ñu. alaakulli xaal Zajirul Xulub hmm. ci centenaire Seydi Hadj Malick bi non kenn dama doon yuux fi ma tëdd macha allah tey tey bokku ci bokku ci bokku. ndeysaan aywa euh, euh, moom nee na ci sóoratu dio di soog ah voilà nee na ci sóoratu euh, arrahman la ñëw ak ñun mhm. nee na yasaluhu man fi samawati wal ardi mhm. kulla yawmin huwa fi sha'n mhm. loolu la bëgg nga ñëwal ko ci allahu akbar macha allah jërëjëf suñu Mbàkke xam nga boo boo demee ci boo demee ci laay ji ko tiim kullu man alayha faani suñu borom ngi leeral lépp loo gis ci kaw suuf mhm. luy jeex la mhm. lépp ay jeex mhm. garab yeeg montagne yeeg amul lu fiy des di nga a taxaw fii bés mën a taxaw bërëng ab nen mu naa mu dem ba ba Bamako te dara du ko fil wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikram dëgg la dëgg la waaw mhm. jëmmi borom bi rek des fi mhm. allahu akbar ndeysaan fa bi yàlla rabbi mul kaasim ndeysaan soo ko jëlee ni ko sas ay mhm. lii kan moo ko mën ku lu yàlla lan ngeen ci wet laay wallaay ndeysaan yasaluhu man fi samawaati wal ard waa asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ñoom ñëpp euh, dana leen leer danañ ko laaj ndeysaan kullu yawmin huwa fii sha'nin lépp a nga fi ñu nekk asamaan seen mbir a ngay dox dëgg la ñu nekk suuf seen mbir a ngi dox mm-hmm. dara yàlla dara yàlla manqué wul mm-hmm. dara yàlla rëccul lépp ngi dox dëgg la fii ne boo doxoon lay gis kuy wasin mm-hmm. boo doxoon léegi gis kuy kuy kuy faatu mhm. boo doxoon léegi gis ku ñu rob mhm. boo waxoon léegi gis kuy taw ndeysaan boo waxoon léegi gis <laughs> kuy kuy judd ndeysaan lépp yàllaa ngi dox dëgg la yàlla ma ca kaw ak yàlla ma ci suuf benn bi la mhm. mooy wëlbati yëpp ndeysaan lépp lépp yàllaa ngi dox wallaay wallaay wallaay macha allah muy lu am solo nga xamante ne dara du taxaw borom bi kon <laughs> allahu akbar <laughs> waaw um, kulla yawmin huwa fi sha'n waaw bi seet li war a am day am dara du taxaw jamono jii ñuy waxe am na am am na am na kuy am bébé allahu akbar nga xam ne boo moytuwul bàyyi ma nga bëgg ñu di ko annoncé waaye jamono jii am na ku ñuy eh, ku ñuy dogguli nga xamante ne ña nga naan sëlam ko ba yi wàcc allahu akbar am na ku jot message boo xam ne ma nga bëgg a bëgg bay ree koo xam ne ma nga jot message boo ne ma ngay jooy allahu am na koo xam ne ma ngay fecc am koo xam ne ma nga banku di wiñaaru ndax biir buy métti <laughs> <laughs> waaw am na barab boo xam ne ma ngay taw fi mu ne fi may waxe yow ma ngay taw ndox mu bari am na fuy taw waaw am ñoo xam ne ña ngay ña ngay upp ndaxu tàngoor toog ci pénc ma <laughs> lépp nag ki koy piloté di ko doxal mooy borom bi subhaanahu wa taala jalla jalaaluhu kullu yawmin huwa fi shaani allahu akbar waaw lépp suñu borom a ngi dox mm-hmm. dara taxawul ndeysaan waaw dara taxawul ndeysaan lépp a ngi dox macha allah eh, eh, macha allah kon yow Mbàkke booy xool kon bàkku geeg tëggu geeg mm-hmm. bu dijji dijji lu géej. Mm-hmm. rëy rëy lu amul sens. dëgg la ndeysaan. amul benn sens ndeysaan nga xam ne léeg-léeg responsabilité. da ko ciy dégg nit itam bu ay responsabilité am rëyee. Euh, wutum nooflaay daa war a néew ci moom waaw maanaam boo dee noppalu yow it ndax nit day noppalu ndax day sonn hmm. waaye li war a dox lépp nanga fexe ba muy dox waaw waaw war a dox lépp na nga fexe ba muy dox ba dara ba dara du sooxe hmm. waaw ba dara du sooxe dëgg la dëgg la moo moo tax daal xam naa ni yàlla rek a yàlla dëgg la dëgg la gis nga moom rek a yàlla moos bay xool hmm. bay xool ana Namrud ana Firawna ana ñu yaakaaroon ni ñoo moom asamaan ak juróom-ñaar suufi juróom-ñaar ndeysaan ana ñi nga xam ne ana ana ana ana dëgg la ana ñi fi nekkoon defee mbëru dëgg la ba foog ni defee ni ñoom mm. lépp ci seen waaw la war a dox mm. ñu ci bari tey déggatu ci kenn. wallaay ndeysaan muy lu am solo ñu jaajëfal ko bu baax a baax euh, ci laajam bu am solo boobu <laughs> ñu jaajëfal ko bu baax ki ci topp mooy kóllëre kóllëre añ màkk la wax Mm-hmm. nee na ci misaal mm-hmm. Arabie Saoudite dañoo limité at yi wax ne ku am lu mat lu ëpp juróom benn fukki ak juróom mm-hmm. soixante cinq ans doo aj si mu ne léegi aj Makka farata la ci jullit eh, jullit bu waajoon bay bëgg a aj yi te am 65 ans ñu ne ko doo ñëw ndax loolu mu ne léegi moom bu fekkee loola da ciy am ñàkk aj kan moo koy gàddu ndax ñoom ñi bañ ko am 65 ans aj si ñoo koy gàddu wala lu xew kenn du ko gàddu ndax euh, cas force majeure su amee dañuy xam ni lii moo mënta ñàkk ndax diina mu ci la ñuy forcé mm-hmm. dañuy xamuñu ñun jekko jekko na ñun dañu tëj jumaa yi mm-hmm. jumaa yi ñii duñ julli ji mm-hmm. daa fa julli jumaa farata la dëgg la waaw léegi nag situation bi tax ñu ni euh, ku amul cinq euh, soixante cinq ans boo xasee ba am doo mën a ñëw sécurité dëkk bi la dëgg la ak itam fii jamono toll rek bu ko defee nag feefi bàkkaar ne wu ca leneen ne wu ndax itam dañuy laaj fas alu ala zikri in kuntum laa ta'lamuun mm-hmm. ñu am xam-xam ca loola mm-hmm. ñoo jàpp ne lii mooy li ñuy may jàmm ñun nañ ko def kon nanu ñaan rek yi fi jeex tàkk mm-hmm. waaye lu luñ cey gàddamu ci wallaahu taala alam macha allah muy loo am solo kon bu boobaa da koy dugal ci ñàkk man gi nga xamante ne euh, ñàkk man mooy euh, waaw léeg-léeg ki ñàkkub yóbbal Mm-hmm. wala kii ko amoon ba noppi wéradi mm-hmm. wala nangam wala nangam léegi 65 ans ba pare ñun la doo ñëw dañ koy dugal kon ci benn ci ngant yooyu lañ koy dugal ngant ma 65 ans ñi ko am danañ màggatam ñu daan ànd mag ñoo xam ne waaw màgg gi dana tax wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg li gàllu ci ñoom ci ay farata <laughs> duñ ko def niñ ko ah, niñ ko war defee waaw léeg-léeg léeg li war ci ñoom ci farata duñ ko def niñ ko war a defee 65 ans nag mën naa am tuuti kii ne mënoon nañ koo gën a yéegal mënoon na allah kulli xaal daal euh, moom tubarkàlla. Mbacke yow daje nga ci ak ay mag ñoo xamante ne nii. waaw euh, bu ñu demee ca àll ba. ci ngay door a xam ne ñii waruñu woon ñëw. waaw da ngay xam ne ñii waruñu woon ñëw. dëgg la ndax diggante mm, euh, Musdalifa fa ñuy hmm. sore xeer ya ak fi ngay léegi sax. léegi sax tane na ndax da dañuy léegi vague yëpp du ñëwandoo. Hmm. dañu am ñu ñuy braqué ñu ñëw mun na dal noppalu ba suba ñu sànni si xam nga loolu tane waaye boo yendoo arafaat boole timis gi ak gee gi julee ji ko musdalifa mhm. for fa ay jamara ni ñoon ñu ni ba sa jot nga bëgg a continuer ñëw ci jamara yi mhm. sànni jamara yi prononcé war a dem jëm dem def sa tawaaful ifaada mhm. te set diggante boobu rek dafa doy sëkk waaye nga dem war a juróom-ñaari yoon nga war ko wër war a daw safaak war juróom-ñaari yoon demaat sa dal simmeeku wutiwaat mun na demaat foofu gone gu tayee sax mën ko. dëgg la waxuma la ak mag. dëgg la donc moo tax ñoom ñu ne ci côté boobu tam wax dëgg yàlla. ñu comprendre leen ci dëgg la macha allah euh, kon nag yàlla na ci yàlla defuk yombal. amiin bi rabbi euh, xaw ma ana Paa Bayo. Paa Bayo sama góor Paa Bayo démb laa seetaan ba gis ko ndeysaan Paa xam naa bu dee mi ngi dund ñu ngi koy nuyu waaw waaw yàlla na ko message fekk muy dund waaw am amoon na ci dégg-dégg moo ci amoon dama xam wóoru moo tax magaloon na daal Paa Bayo moo ma doon wax naan ma Kaaba baaxul waaw xam nga boo <laughs> dañoo dem dañoo dem tawaaful xudduum Paa Bayo di nuyu Kaaba ga rek sëñ bii daj fa la lam fa daj daanu fa ñu joggi ko ndeysaan te màggat mu ñëw toog bu nekkee ci hôtel bi su ma ñëwee ne ko Paa Bayo ñu dem Kaaba ga comme <laughs> comme làkk olof bi daa defee leer Paa di naan ma hee la ma ne ko waaw mu ne ma Kaaba baaxut <laughs> te fekk daa bëgg a wax foofa foofa dafa metti la bëgg a wax xam nga aj ba noppi te nangu woo dem ci Kaaba ga kenn xamul lu mu woon <laughs> mu ne ma Kaaba baaxut. mooy bi bi ñu wàccee Dubaay Éthiopie. ndeysaan. bi ñu wàccee moom muus jaay jaay ci waaw ah, ah, mooy bi nga ko bi nga ko jàngalee nu ñu kii <laughs> te paa bayokat li nga ko won lu yomb la maanaam ni ñu jëfandikoo kii bi ci oto bi ñu kiyee rek ni ñu <laughs> de ni ñu demee woon waaw <laughs> ah, xam nga xamul woon ne ndeke toilette yu mel noonu am na waaw ndeysaan waaw toilette yooyu toog ne nongu janoo ki seetu muy taxaw nag di xool waaw Paa Bayo na mbay du nit. ma ne ko ma ne ko ma ne ko Paa Bayo nag mbay lim la jàngal du xam-xam. li ñuy faje aajo donc. yow li la mbay jàngal mooy la ni ñuy faja aajo la la mbay jàngal di <laughs> paa ba yow kat daf mu doon bëgg a rey seen tourné ne ma mbay du nit kii ma ne ko ah mun dafa bari xam-xam <laughs> ba ma gëstoo daal ndekk paa ba moom ba mu duggee ca hôtel ba ba dugg ci wanag wi la xamut <laughs> la xamut ni ñu koy jëfandikoo rek xamut xamut fii dañuy toog wala dañ ciy tëdd wala dañuy taxaw <laughs> mbay mbay woon ko ko nag ni ko ubbil mu ubbi mu ne ko toogal mu toog <laughs> boo fajee ajo ba nag fii ngay raxasoo mu ne ma mbay du nit mbay lim xam bari na mbay moo muus ma ne ko lim la jàngal de mooy ni ñuy faje ajo képp na ayca euh, nee na euh, bi mu noppee ci loolu koo xam ne daa bëggoon a julli ji jumaa xëy suba mm. bëgg a julli ji mm. ah ñu téye ko ne ko doo julli ji mhm. mu ne léegi euh, de moom sax teg na ci ay commentaires yu bari mhm. waaye li li li ci laaj bi rek mooy mhm. ndax ña ko téye ñoo ñaa gàddu bàkkaaru ñàkk julli jéem wala lan lañ koy attee waaw euh, loolu day moom bàkkaar bu ci dee am bu fekkente ne dañ ko ko def ngir tooñ ko bu fekkee dañ koo tooñ wala doole la wala liggéey bu ñu koy liggéey loo bu dee liggéey la boo xamante ne bu buñ koy liggéey loo ne que nag doo dañ may ñu la julli ji moom bu boobaa na dem liggéeyi te ñaan yàlla bàyyi mu bàyyi liggéey booba. Ah. liggéey bu la tere def say farat moom loolu hmm. bu fekkee ni dafa nekk ci loxoy buur muy ko buur téye bu boobaa moom moomul boppam. Hmm. ku moom sa bopp jumaa waru ko waaw waru ko. bu dee bu dee bu dee ku yoon téye. bu dee ku yoon téye. Hmm. jumaa waru la. ndax yaa ngi ci loxoy buur liibara goo ku liibarul nag moo fu ne nga dem fa mënoo fu ne nga dem nga def ko kon ña ko téye ñu nga ca yoon waaye yow itam ñu wàccoo nga ak sa borom. Mm-hmm. ba keroog ngay féex. Mm-hmm. boo gisee ñu ne gan sax jumaa waru ko yooyu ci la bokk pour liberté. dëgg la waaw nga am liberté mm-hmm. ndax fitna nga ngay tegoo coono yi ngay tegoo yëpp. kon nag na bu fekkee da nga am leen teg buur ah, buur tegi tegi sart ah, bu boobaa tam dañ naan jumaa ji warul d'accord muy lu am solo euh, tubarkàlla ndax xam nga léeg jumaa moom mhm. ki waroon julli ji jumaa sax xam ne dama faa ameel Aline Ndiaye bor te Aline julli si na te jumaa ji mën nañ faa dajal mu fitnaal ma poñe ma <laughs> ci fuqaa yi sax dañuy wax ne kooku sax mën naa jullee këram bañ a <laughs> bañ a julli ji jumaa ndax ndax bañ fitna te tëju léegi nag bu fekkee euh, histoire bi fi mujjee am ci wàllu campagne yeeg euh, wàllu marché yi mhm. nga xam ne aji génn ji bëgg julli ji ñu téye ko ne ko doo julli ji moom mi ñu téye moom mu delluwaat ci këram kooka moom mm-hmm. amut amut bàkkaaru ñàkk julli ji waaw moom a personne mën naa bañ a am ñàkkaaru bàkkaaru ñàkk julli ji mm-hmm, mm-hmm, léegi ñi ko ñi ko téye it ñaari yëf la bu fekkee dem julli ji gi day doon loo xam day indi fitna bu boobaa moom woote jàmm mën naa man naa jur loolu mu am tisbaar ba noppi jàmm am mm-hmm. su fekkee dañ koy téye nag ndax ay calcul politique ay mm-hmm. pexeek nangam nangam rek ba xañ ci nit ak ja ak ñàkk jàmm yàlla mm-hmm. bu boobaa bàkkaar bi moom la tàmbulee ca ka ko téye ca suuf ba ca ka joxe ordre ca kaw ñoom ñëpp da koy seet ñoom ñëpp loolu rek la wallahu taala alam li lu ñëpp xam loo ca mos na ayca man maa ngi doon comprendre ma ko ni si jàngoog eh, tubarkàlla sëñ Saaliwu Jaxate ñu ngi koy nuyu baax a baax imaam li eh, la bëgg nga ñëwal ko ci waaw moom day ma Fatiha day yaakaar naa mat na ñetti émission wala ñeent sax. Mhm. ndax moom la waaye ñu ñaxatu ko ne ko oustaz di waxee rek. waaw ayca al mhm. eh, bari nay tur. Mhm. trop sax. Eh, tudd na sabul masaan yi. al Fatihatul kitaab. Eh, yëpp nga ca. waaye nee nañu Fatiha rek moom mooy. moo introduire al alquran. baab bismillahi rahmaani rahim moo ko ubbi baab yi moo ko ubbi. yooyu yëpp borom xam-xam ñëw nañ ci. waaye ci ñaxatu firi rek. Euh, ginnaaw boo tàmbalee sa wax sa jëf. Hmm. Hmm? Hmm. ci turu rahmaan ak rahim. rahmaan mooy ki nga xamante ni moo yërëm ku ko neex maanaam ñëpp de ñu ngi ci yërmande. ndax jantam bi ñëpp lay waawal seeni fóot ngelaw li ñëpp lay ëpp ku lànk ak ku bañ. ku nangu yàlla ku nangul yàlla ku nekk jant bi dafay tiim par force ngelaw mi noonu la taw bi ku taw bu tawee ku ji sax mu sax kon kon mooy rahmaan moo tax noonu li dafa ubbeeku rahiimi dañoo tëj miim bi. waaw moo lay xamal ni gise fermi la. ëllëg fële gisee fermi la. est-ce que doo bàyyi ba egg fu naan da ngay julli. <laughs> ak da ngay woor ak da ngay sarxe. dëgg amatul foofu. dëgg la lépp fii ngay fàggoo. waaye dem ba fële ca stade ba ñu la gisee fermé la amul kenn koy jaay nga ne ah. ana billet yi ah. nar ngaa indi embouteillage dëgg kon lii gars yi sonn suñ mbàkki si la ñi na ci koor ga ñi na ci julli ga ñii di doxi bokk ñii di jënd xar di jox nit ñi ñii di jënd ay tis di jox nit ñi ku ne yaa ngi wut tuyaaba ak ngërëmu suñu borom subhanahu bu ëllëgee bu ñu la joxee sa ticket da ngay waaxu rek dugg ah. yaa ngi dégg mooy waa boobu kon mooy rahim yi moo tax mim bi dañ koo tëj rahmaani dañ ko ubbi alhamdulillahi rabbil alamin sant naa yàlla bi ma ko yàlla xamale ci cant rek wala nga ne xaaj cant yi ñeent yëpp ndeysaan rahman rahman rahim ñëwati uh-huh. malik yomi diina uh-huh. koo kenn ko moom bis penc uh-huh. kenn képp a fay buur moo fay teg ndawal mooy wax ñëpp ni waaw mu ñàkk a wax kenn ñemewul wax malik yomi diini bis boobu bis penc la ñëpp daañuy dekki ni tekk mu posé question ni ma nil mulkul yow ma ana seen i buur dëgg la li ma nil mulkul yow ma ñëpp ne tekk mu ni ñaw lillaahi wahdul qahaar man dong la ca bi. est-ce que loo bëgg nga na na'budu uh-huh. maa ngi engagé wu léegi nag xamal leen man yow képp lay jaamu kenn du sama kenn du sama borom kenn moomu ma. dëgg la tey ah ngi noonu. Uh-huh. ak lan ngeen ko iyyaaka nasta'iin di. Uh-huh. ci yow dong laa sukkandiku ci yow dong laa wéeru. allahu akbar loolu mooy xaqiqa. allahu akbar xam nga bi nga naan yaakaar naa abudu. am na foofu noonu jamu. boo gisee jullit waxta sa taqali ko ak moromu jullitam. jamono boo nee yaa ngi merente ak Aliou Ndiaye. Hmm. booy julli da nga koy ñaanalal da nga koy da koy engagé waale. dëgg la dëgg maa ngi maa ngi lay jaamu uh-huh. yow képp laay jaamu lanuy jaamu uh-huh. waaye doone iyaaka aabudu parce que boo ne iyaaka aabudu mu yàqu uh-huh. waaye iyaaka na aabudu man ak Aliou Ndiaye mi ngi sama ginnaaw te ma ko tudd du ma tudd ak asantud mi nga xam mooy sama noon ñun ñëpp na aabudu yow lanuy jaamu kon ana xulo wallaahi ndeysaan kii ma bokkulul parti hmm. ma nga ca APR kii ma nga ca Fastef kii ma nga ca eh, PDS kii ma nga fala sàngam nangam du ñu tudd ñun ñëpp di xëccoo réew mi hmm. naabudu say jaam loonu ah lu ngeen bëgg ihdina siraatal mustaqim orienté ñu rek te ci yoonu siraatal mustaqim mu jub xocc <laughs> kese loolu lañu bëgg doodoo wax pal gi fal ma def ma député def ma président de la république kenn du ko fa ñaan ndax nee ñaan yooyu ñaan yu périmé la jawir zaka yi moo ko firi bis bu dem saa sal ñëw sëñ daa tàmbali mooy bu tëj mooy bu bismillah jawir zaka yi bismillah yan mawlaay yan mawlaay bilaay mën a wax xam nga daal ni jawil zakkaay mm-hmm. may ma xel mu ñaw mu ma la mën a ñaanee li ma bëgg mm-hmm. <laughs> dañu gaa kaaba ga boo ne jàgg kaaba ga mm-hmm. loo ñaan rek yàlla may la ko dëgg la sa kalaas gi gis naa bu ñu demee foofu ndeysaan dañ daan jàkk doo xef waaye sa kër mooy doo xef waaw doo xef de doo xef da da ngay naan jàkk wax li nga wax ba pare doo xef mooy secret bi léegi nag am na ñoo xam ne naan ko yàlla maa ngi lay ñaan jàkk ji ma ne jàkk ci kaaba gi lépp lu ma la ñaanati yàlla nag ma ko may. xam nga mm-hmm. am nga caabi ji. Mm-hmm. waaw nag bu dee boobaa nag loo loo ñaanati may la ko. Mm-hmm. waaye bu fa leen kebar sama fas wër yoroon daaw yàlla na nga ma may fas yàlla na nga ma may oto yàlla na nga may kër yàlla naa falu. yooyu day gudd. waaw ah, ñàkk xam farata ñàkk xam farata la. moo tax ihdina siraatal mustaqim ndeysaan yal nañu ko yàlla yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla defal alfaatiha ni nga ko waxee doy na sëkk aw waxtaan doy na sëkk aw waxtaan doy na sëkk ci wax rek daanaka doy na sëkk doy na sëkk doy na eh, xam naa li téere bi bari bari moom rek la ñu ci gàll nga xam ne bis bi dañ ko ci jàng lu mat fukki yoon ak juróom ñaar dëgg la dëgg la minimum minimum jullit bu ne dana ko jàng fukki yoon ak juróom ñaar ndax julli goo julli mu am ci julli goo julli jàng ci eh, waaw moom mooy dundug nit rek mooy dundug nit macha allah bari na ngëneel lool uh-huh. waaw ndax bi koy jibril di wàcc dafa asamaan si dafa ne xatatatatatat jibril ni ko téenal mu téen mu ni ko lii lan la mu ni ko yàllaa ngi wàccee ci yow loo xamante ne musul wàcc ci benn yonent allahu akbar waaw allahu akbar muy wal faatixatul kitaab macha allah ah, macha allah danañ amaat yeneen occasion dellu ah, si waat ci lu gën a yaatu sëñ Saaliwu Jaxate sama xarit boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Fam Njóogu sañu jaay ak sañ xaadim ak waa famille bi yëpp ñoom Murtada eh, eh, ayca Ibrahima Wade Wadeen ga eh, Ibrahima mm. moo ci topp mm. nekk fële ca aéroport ñu ngi koy nuyu du nuy waa ay AIBD yëpp mm-hmm. taxi yaag taximaan yaag mm-hmm. ñiy puus bagage yi nee na ndax dagan na ci ab jullit muy dugg ci biir ab église wala déet waaw mën na dugg église parce que di liñ ko fay tere rek mooy nga dugg fa di di di jaamu. wala ngay dugg di mel comme ñu nga xam ñoo moom église ba parce que bokk leen diine bokk leen fréquence. ndeysaan lépp lu war ci maslaha nag bu fekkee ne ni mbokk nga fa yaaya nga fa. Mhm. wala koo xamante ne mënul ñàkk mën ngaa dugg taxaw ca ginnaaw. Mhm. bu di armée te mën nga caa dem taxaw ca ginnaaw. li ñu seet rek mooy doo sang doo sang doo suul doo ñaan doo ne amiin parce que bokk leen fréquence loolu leen la tere même eh, gars yi ne ci àll bi nekk ci Italie wala nekk feneen ñaare buñ dee def seen cérémonie yi bu ca fan at yee ci ginnaaw xam ndax soppi ko am déet dañ leen daan abal église yi ñu fay taxawal seen i seen i seen i seen i waaw moom bari na ci ñoom am nañu ay saal seen saal yi ñaar ci la ñuy defee seen activité yu bëree bëri am nañu seen saal mu ngook macha allah jërëjëf jërëjëf oustaz ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci laajam bu am solo boobu ki ci topp mooy sëñ Pape Mor Diaw euh, moom indiwut ab laaj dafa mel ne ay nuyoo rek la indi waaw da doon yëglu moom hmm. il paraît que mi ngi fi hmm, ndeysaan waaw moom mi ngi fi yaakaar naa fi la jullee ndeysaan moo ak soxna si ndeysaan kon nag Pape ñu ngi lay ñu koy ñaanal vacances yi jàmm ñaanal bu baax a baax a baax marhaban marhaban wa ahlan wa sahlan moo ko suñu jigéen bi soxna Ndeye Camara madame Doucouré waaw moom itam mi ngi Sénégal je pense waaw moom itam yëgoon naa ne mi ngi fi xam ne xam ne xam nga nga Mbàkke tukki dafa metti dëgg la soo tukkee euh, yàgg boo ñëwee mbokk yeeg dëkkandoo yeeg yi nga xamante ne mënul ñàkk dëj yeeg yi nga war a jàll ji dafay bari. Mhm. bari trop moo tax daanaka coono bi mooy ëpp nag. boo ñibbisee <laughs> kon ñu ngi leen ndokkeel ñoom ñëpp di leen bu baax a baax di leen masawu di leen ñaanal bu séjour bu baax a baax tubarkàlla jërëjëf jërëjëf suñu fàllu mii nekk ca Maris ak ki nga xam ne mooy Mamadou Diouf Mamadou moom ma nga ca ITV ak i léegi nag bi ma leen sànni xeer laa jot message am mu nuyoo wane ne maa ngi leen déglu xam naa daa bëgg ne ma na nga xam li ngay wax <laughs> mu ne en tout cas <laughs> ITV i rajo moom vraiment maa ngi koy nuyu seen programme neex na maa ngi nuyu Kouthia waaw eh, seen naa ko fa. Abu Bilal waaw di nuyu Bubs. <laughs> non Bubs ak Ibou Fall ñoo may daj suba gi. <laughs> ayca <laughs> eh, ki ci topp mooy eh, waaw dafa jutta indi aw turam. waaw dafa lépp tur bi waaye Fallaaw de nee na hmm. seen imaam daal moom. Hmm. xam naa daa mel ne sëñ Cheikh Mbacke solution rek. Hmm. nee na daal bu leen di jiite jullik timis ak jullik suba. daanaka kenn du dégg li muy wax. moom day kàbbar ba sëlmal jot mu sëlmal rek waaye duñ dégg ci li muy tari dara dara dara dara dara dara muy laaj ba xam nag ndax ñoom buñ ca noppee dañoo war a beriwaat seenu julli wala nu ñu war a def yéeg moom nag dafa dafa war a yëkkati baatam nag parce que jilu yelu ak gubéral du benn waaw ah, xam nga xam waaw <laughs> mi ngi mel na wa man a fi jahri waaw sajada qabla salaam waaw mais kii xëy na defut asar mais dafa dafa kii rek kàddu gee suufe rek <laughs> waaw kàddu lu mu suufe su nag ki la dégg nga ne la mën na ko dégg uh-huh. waaw te mu xam ne julli kii la julli kii la boo mënul rek nga jox ke ne mu jiite waaye julli moom daraja jëmu ci maqaama jëmu ci waxal ca kaw alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp di ko dégg hmm. wala ñu takkal la micro ba mu jege la nga xam ne boo waxee ñu dégg ko hmm. waaye bu ko bu koy yelu bul ko waxee ni nga koy sentire julli daam format waaw bul ko bul ko ñiing ba mu waaw bul ko ñiing wala tajhar bis salaatika wala tuxaafit biha waaw bu dee mën naa koo dugal. mën naa jàngoo waaw mu ngoo wax jàng <laughs> la noonu rek lañ ko war a defee mm-hmm. wallahu taala alam shukran macha allah léegi ndax ñoom nag ñàkk gi ñàkk dégg jàng day tax mm, a la muy mm. rek xëy na yéen a ngi ciy for mu yëkkatee kat kii jàpp leen rek ma ngay kii jarul ngeen ci baamonte kay waaye ñu waxtaan leen moom rek nag ooy <laughs> a ndax julli sikki sàkk moom daa baaxul mm-hmm. waaw nu moom da nga am yàqin ci ni yow sa julli gii def nga ko ni nga ko war a defee kanta jëmmi nangu ji nag borom bi la subhaanahu wa taala mm, dëgg la allahu taala macha allah <laughs> am na solo Imaam lii jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu euh, mbokk mi euh, waaw loolu la ki ci mooy kan Moussa Diallo Moussa Diallo Moussa moom daa ñëw ci alquranul karim mm-hmm. ma nga ca luqmaan aaya 13 ah aaya 13 mooy tolloog fa borom bi di waxee naan wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizuhu yaa bunayya laa tushrik billah hmm. inna ashirka la zulmun azim wa wassayna al insana bi walidayhi xamalathu hummuhu wahnan wa ala wahn hmm. wa fisaaluhu fi aamayn ba aaya ji jeex lay ndeysaan macha allah macha allah suñu mbàkke lii rek dafa doy sëkk aw waxtaan doy sëkk aw waxtaan eh, luqmaan nee nañu du yonent waaye ku yàlla baaxal la waaye dafa am xikma waaye waaye dafa doon waxtaan ak doom ji di waar doom ji ba doom ji fa roccub liggéey kon kon kon xam nga ni comme mën naa waaraate di ko waar ba mu kii ba mu génn <laughs> <laughs> lu mu ko wax ba mu <laughs> lu mu ko wax ba mu faatu Oustaz Mbaye li nga na wax bari na waaye bokk na ci di ko waar ba mu ne këlëb doom ji fàcc fàccub liggéey gis nga mu ne ko wa is fàttaliku yow Muhammad sallallahu alayhi wa sa mbokk mu ñu wax luqmaan bi muy waxtaan ak doom ji wax wa yaisuhu fekk mi ngi koy waar mm. di waar doom ji nan ko yow sama doom rik laa tusik billah bul bokkaale yàlla mukk bul ko wutal ndend mukk ndeysaan gis nga première kon responsabilité parent ca loolu la mu xamal ay doom ne yàlla kenn la mm. bokk na ca lañ ko gën a gëm loo mu gëm yàlla kenn la mm-hmm. ko bul bokkaale yàlla mukk mu ni ko inna shirka la zulmun azim bokkale yàlla tooñ la gu maga maga mag gu réeréeréeréy xam nga ne tekk bu doon sa sali sax daan yàlla ne ko may ma mm-hmm. may ma <laughs> daane ko daa dek pose di ko def mooy nga jàng ni mm-hmm. moom wasaynal insaan nañu doom aadama ci ñaari way juróom mm-hmm. ñu ngi lay dénk nga sàmmonte sa ñaari way juróom ndax lan xamalat ummuhu wax nan alaa waxan sa yaay mi ngi la ëmb ci diggante ëmb ak wasin ci fitna ak ci kaw fitna coono ak ci kaw coono wa fi saaluhu fi amay ni ëmb géeg nàmpal gi yépp ñaari at la ëmb géeg nàmpal géeg feral gi ñaari at la lépp yaay ko gàddu kon an sukkur li wal waay dayka sant ma man mii may jàmm sa yaay may la jàmm ba ngeen dund waaye nga ñu sant sa yaay bi nga xam ne moo gàddu woon responsabilité bi xool yàlla ni mu amee reconnaissance mm-hmm. ci waajur ak ñi nga xam noonu la baaxee mm-hmm. kon sant yàlla baax na waaye yàlla nee na boo ma santee ba pare sant ma sant sa waajur bi nga xam ne moom laa gàlloon loolu xam nga mooy dafay lay dellu si li ngeen wax léegi ji responsabilité jigéen ci kaw suuf wala ëmb bi mu metti juróom-ñeenti weer wasin ñëw gën ko metti boot perental ak nàmpal perental gën koo metti ah. ñaari at yàlla ah. nga sëri ngara waaw ko jeex tàkk bu xale bi dee jooy guddi doo doo nelaw xamoo lu koy metti ngay nàmpal ak wëlbati guddi xamoo foo jëm moom mu metti lool yor koo xamante ne moom la ne lii moom a metti te guddi gi ñëpp ne seraw yaa moom dong ngay boot ci nii bi di mogg moggal di boot ci moggal boobu ana bàyyi ah. ana ñeneen ñëpp nga tëdd waaw kay mu ne nag ilayal masir ci man ngeen mujj de. fii hmm. ngeen jëm si. Hmm. lu muy yàgg yàgg nag dinaa leen dinaa leen danaa leen danaa leen auditer yéen ñëpp. dama hmm. xam nag ngeen doon rafetale seen seen ñaari way jur. waaye gis nga sëñ Bàkke. wa in jaahadaaka. alaa an tushrika bii maa laysa laka bihi ilm. ah falaa tutiihumaa loo leen topp topp nag loo leen bëgg bëgg bëgg bu ñu la bëggee indil loo xamante ni ànduma ca te du te du dëgg. bu leen ci topp de rafetal jëm na wa saahibuhumaa wallahu taala alam jërëjëf oustaz jërëjëf euh, euh, saan kii nee na euh, soxna kumba mi ay siyaar la indi ak ay nuyoo mm. ci moom sax la ñuy far taxaw mm. bàyyi boon rek ñu jéggalu ko mook sëriñ bi ci topp ndax waxtu yu jeex na tàkk te publicité yeeg yooyu mi ngi taxaw tiim ñu kon Adja Kumba jëm suñu lu jiw a jeexul jógu fa incha allah mm. boo noppee ci jaar-jaar yonent yi dinañ ànd ak oustaz Alioune Sall ci tafsir quranul karim bu am solo bi mu fi bàyyi mm-hmm. bu ca noppee itam xamtu kon kàddu gaa ngi noonu mbay merci Alassane jërëjëf ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.